asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ma bokkal réew mi bokk yi ma bokkal lislaam bokk yi ma bokkal yoonu murit maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñépp di balu àq ñépp di bal àq ñépp di walbatiku di yëkkati kàdduy tuub yoo xam ne dama koy tuubal sama borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom bind ci bépp bàkkaar boo xam ne def naa ko ci ak tayeef wala ma def ko ci ak ñàkk moo xam ma yëg ko wala ma ñàkk koo yëg del di ko tuubal ci bàkkaar boo xam ne def naa ko sama diggante ak doomu aadama yi moo xam lu ma yëg wala lu ma yëgul di tuub bàkkaar boo xam ne def naa ko ci sama diggante ak sama njaboot ak sama jëmmi bopp di fas yéene yëkkati ay kàddu di ñaanal jëwriñi sëriñ Touba jii di sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te dolli ak wéram ñaanal mbooleem njabootuk sëriñ Touba gépp moo xam mu di sët wala taalibe wala mbokk walla dëkkandoo wala soppe wala képp ku sëriñ bi bokkal àdduna bi bokk yow réew mi maa ngi lay nuyu Euh, di fas yéene yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne na ma ko waxe woon ca kàddu yu njëkk ya kàddu yi laabirante lay doon waaye kàddu yi pas-pas lay doon su ngeen gisee ñaari nataal yi nga xam ne ñoom laa dendal dañuy wax ne foofu rek laa mën a waxe ma ñëw nag ci mbas mi nga xam ne walla balaa ñaar yëpp danañ ko ko wooye ca lum ci man di doon di bàyyi ko ci coobare sun borom subhaanahu wa taala te yàlla dogal njëkku fee am ren yàgg fee am lool moo xam nag mu daan mbas moo xam ne dañ ko daan dégg ci am réew walla balaa bu daan wàcc ci am réew wala muy balaa bu wàcc ci ab continent wala muy balaa bu daj àdduna bépp bokk yi rek ñu delluwaat ci alquranul karim ginnaaw ñun senegal ci lislaam la tënku te ñoo bokk benn téere bu ñuy jàng bokk benn xibla bu ñuy jublu bokk yenn waxtu yu ñuy jaamu suñu borom subhaanahu wa bokk benn baat buñ dugal ci diine lislaam bu nu jaaxlee dañoo war a delluwaat ci téere boobu nga xam ne ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim xayril maxdubi alayhim wala dalin amin téere boobu nga xam ne moom rek moo ñu mën a teg ci yoon wi te sun borom subhaanahu wa taala wàcce ko ne tanzilun min rabbil alamin téere boobu nga xamante ne bii maa huwa shifaun wa rahmatun lil alamin téere boobu nag kon ñun saayu yu lëj-lëj amee moo ñu waxoon nañu delsiwaat leen ci man ida azabathum musibatun xaalu ina lillahi wa inna ilayhi rajihun kon mbas mi nga xam ne wala balaa bii nga xam ne kenn nattable wut ne kàddu yi ma jiital mooy man dama jàpp ne balaa bi wala mbas mi man maa ko waral man maa ko waral moo tax ma jiit ma jiital kàddu yu tuub waaye bokk yi bu ma ko waralee su ma ko waralut suñ ko waralee suñ ko waralut ak lu ci man di doon yëg nañ ne àdduna àgg na ci ak mbon foo xam ne waroon nañoo séntu ne musibam yàlla du mën a ñàkk a ñëw am na ñoo xam ne ba seenug mbon ñëwee suufa yëngu wan na leen suufa yëngu wan na leen am ñoo xam ne suñ borom yabal na ci ñoom ay mala yàlla wàcce na nu ne balaa am ñoo xam ne ngelawu fa jaar yóbbu leen am ñoo xam ne duusi géej yi ñoo leen wan am ñoo xam ne ay dojo jóge ci kaw wàcc ci seen bopp kon yàlla yàgg naa wax ak jaam bi na ko saa yoo wàccee yoon wii ma la jaarale ba mu jéggi dayoo nag danaa la wanaat na la maa la bindoon te maa la moom am naa ko lay contrôler kon mbokk yi war nañoo gëm ne musiba muy gaaw na léegi kon du nattu benn continent du nattu benn dëkk du nattu benn réew du nattu wenn xeet nattu àdduna bépp kon lan moo ñu war a dese ñun jullit yi lu weesu delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala bi ñu demee nag ba war a delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala dañuy dellusiwaat ci réew mi nga xam ne moom lañ dëkk dalal ci xelum jullit yi ndax nit bu nekkee ci fitna baa njàqare docteur ba ko dàq faj mooy ba ko war a delloosiwaat ba dalal am xelam bokk yi kër docteur doonut lenn lu weesu boo si baa nga wéradi baa lu la mën a dal yow bu ñu la jëlee ci kër gi di la yóbbu kër docteur su la docteur yi tiimee yaa ngi commencé sentir ne lee nga am jàmm dara waralu ko lu weesu dal ga xel waaye bokk yi docteur bis bu demee ba yóbbu fitu malaat na ko wóor ne boobu malaat duutu wér ndax njaqare day yokk jàngoro wax nañ ne am na benn nitu yàlla wala bokk benn nit boo xam ne feebar bi ko dal docteur yi fu ne yóbbu nañ ko def ko passé visite def ko passé rajo lu ñu def nañ ko mënuñu koo gis médecin bi gën a qualifié bi ñu ko ko joxee dafa ne waa ji lu mu gën a bëgg ci àdduna ñu ne ko ñoom de xam nañ ne ko am na doomam bu tuuti bu mu bëgg lool ci xolam mu ne nañ ko indi dendale ko moom bi ñu ko indee dellale ko ak doom ji dafa ko xool doom ji ba mu yàgg rek mu toj nopp bi ci kanam way juróom doom bi daanu ci escalier bi mu fob appareil bu dëpp ko ci xol bi daat na jàngoro ji daa taf woon ci xol bi te dara mënu koo yëkkati lu weesu mbégteem mu ëpp wala naqaram mu ëpp kon mbokk yi gis nañ ne li muy def loolu kon delloo si waat dalal xelum jullit yi dalal xolom sénégalais yi dalal xelum àdduna bépp ci jullit yi rek lañ ko war a yaakaare kon maa ngi ñaan mé média bu médiatiser bi ñu médiatiser jàngoro ji tiital ci àdduna bépp mbokk yi mën naa dal sax koo xam ne wallahi alazim kenn wàllu ko ko waaye njàqaree tax mu dal ko waaye mën naa yokk jeneen jàngoro ndax mën naa tax ba àgg ci kum dalut sax bu la dara dalee too nangoo dem hôpital ngir ragal ne boo demee ñu ne la loolu moo la dal loolu moo tax communication bi maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy bokk di yëngutu ci wàllu communication nañu nañuy laabiral nit nit ñi waaye di leen tegtal yoon woo xam ne buñ ci jaaree mën a mucc ca bana yóbbu seenu fit ma ñëw nag ci li nga xam ne mooy saafara si saafara si ñun suñu borom dañoo defal tawféex kenn nattable na mbas yàgg na fee wàcc wàccoon na ci jamonoy Serigne Touba ci njaareem tawat ju bon ju duggoon makkatal mukarrama ak madinatul munawara ci pays yi nga xam ne euh, réewi jullit yi lañ waaye ñoom day ba mu dalee ci seen kaw ñoom ñoo ñooñu nga xam ne ay naar lañ di ay sëti yonente bi alayhi salaatu ñoom day amuñu woon benn tegtal wala jenn yaakaar ju weesu ne su ñu demee Sénégal wàcc Sénégal dem dëkk bu ñuy wax buqaxatul mubaarak di njaareem danañ fa fekk jaamoob yàlla boo xam ne juboo naak boromam subhanahu wa taala ñu di ko wax as cheikhu ahmadul bamba kooku de bu ñu demee ci moom bu ñaanee yàlla dana ko rus bokk yi kenn nattabliwut ne weesuwut 1913 wala 1914 waaye ba nu ñëwee xas yi xasida ga tubaab bi di jox leen ko bokk yi àdduna bépp am nañ ko waaye waxoon na leen ne leen bu ngeen mënoon a def seen jëmm yi ñaar jenn ju dellu màkka bu ngeen demee da fekk ne tawat sa génn na màkka te bokk yi bu dee distance dox na diggante sëñ Tuubaa ak Makka bu dee ci temps dox na seen diggante kon lan moo fa jëlee jàngoro ja yaakaar naa ne ñaanuk sëñ tubaa moo gën a gaaw virus bi ndax la muy daw virus bi du ko daw te virus bi munta wàllu lu dul kum jàkkaarlool wala kum nuyool ñaanuk sëñ Tuubaa du jàkkaarloog yow du nuyoog yow waaye fi mu toog lay wax borom bi subhaanahu wa taala kun mu nekk fa yakun kon yaakaar naa ne ñun ñi am sëriñ Tuubaa war nañoo rafet njort war nañoo dal am xel te moom sëñ tubaab ba muy ñaan ci balaa bi booba yàlla wàcceegul benn balaa lahu jàlla kulli wax wa rabbi wa aafisi bihi yantafi anil balaa wal waqaaihu waxaat na itam ca matlabul fawzini wan fil wabaa wal balaa yaa kullaha xanha wa tayib surbaha wa aklaha bokk yi sëñ tubaa yàgg nañoo bàyyi xel yàgg naa xam àdduna yàgg naa xam li ciy xew bam ñuy fegul ay musiba ki balaa booba amagut wala dalaguñ ko wala xamaguñ ko bind lu mel ne gi sëñ Moustapha Muntaxa génne yàlla fi yàgg lool te waa ànd ko wér muy yaa rabbi bi Moustapha al muxtaari min sa safihi ummatihi fil badi waa xadari alayhi salli bi taslimin bila adadin ba xasida ga jeex waaye yëmut foofu bindaan na gëneen xasida gu ñu wax allahu hayun samadun wa baaxi subhaanahu su kanafin wa waaxi wa nahnu fi kanafihi lmanihi min kulli sharrin wa adantanihi mustamsikina bilqiyaasi ahmada xayri l anaami muntahan wa mubtada man qaalaha la sëñ Tubaa wax fii samanil wabaa'i amanahu llahu min albalaa'i nee na bu ngeen ko jàngee ci jamonoy balaa sun borom dana leen musal ca balaa yooyu yëpp kon mbokk yi ñun am nañ wéeruwaay am nañ rawukaay waaye nag balaa mas naa wàcc ba jaaxal àdduna bi sëñ bay jaxate lan la waxoon Cheikhuna Ahmadul Xadim daf ko ne ndegam gaa yi bay daalay xal seeti añ ko xam gaa ya dul bay fu nuy lekkeeti kon su fekkee ne yow bamba may yi nga yor ñi gën rekk a ciy jot na ngay def ñi bon su fekkee ne ñi baaxay amus lëf ci yow ña baaxul lu nuy am ci yow mii fi gën te yaa yor cërub ñi baax ak ñi bon faral jox ñépp te jox ñii fi man ba way wa duggoo ba ci biir lam ko wax moom sañ bay jaxate daf ko ne waxal nag ci mbas mii waxal nag ci mbas mii sa nit ñaa ngi jeex tinul ñépp te yow boo tinoo yàlla tin waxal nag yow bàmba ci mbas mii sa nit ñaa ngi jeex tinul yow bàmba ndax boo tinoo yàlla tin bu ab sàmm nee cell jur gépp jeex bu jur gépp jeexee lu muy sàmmati kere ba mu ko waxee sëñ Touba xadim rasul la mbax mbas mi génn àdduna génn senegal bokk yi ñu amaat ci weeru occasion weeru occasion mooy weeru rajab weeru rajab ay xat-xat ay xat-xat la ci yàlla génnee yonante bi alayhi salaatu wasalaam jëme ko ci mbégte ci njàqare la ko jëlee jëme ko ci mbégte ci fitna la ko jële yóbbu ko ci mbégte weeru rajab rajab sëriñ Tuubaa wax ne rajab akramani rajab moo ma teral weeru rajab bokk ci weer yi nga xam ne bu adduna bépp doon xare jullit yi sax di xareek ak yéefar yi bu àggee ci weeru rajab dañuy tër ngànnaay yi kenn duutu xare kenn duutu xeex kenn dootu xuloo kon rajabul fard rajab weer wu tedd la woo xam ne sun boroom ci boppam moo ko wormaal ba noppi nag ber ko kon bu ñu demee ba jàngoro ji ñu koy coowee ci weeru rajab al isra wal mihraj li ko sun borom subhanahu wa taala defale mustafaa sallallahu alayhi wa mooy ci njàqarale ne woon ngir mu dindil ko njàqareem maamam ja daan wattu génn na àdduna soxnaam su tedd sa génn na àdduna ci daan ko dimbalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ruseetuñ ko kenn ragaleetuñ ko kenn yéefar yi di ko xatal ba tax mu ne na génn dem Taif di kër nijaayam foofee la fa ëppe njàqare fa la ëppe coono ndax fa lañ ko doon dóore ba toj aw dojoram Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci guddi yooyu la ko sun borom subhanahu wa taala ne ko neel cell danaa la defal loo xamante ne bii dana la bégloo te dana tiital say noon loolu la ko rañaane jëlee ko makkatal mukarrama yóbbu ko baytil maqdis jële ko baytil maqdis yóbbu ko ba mu jàkkaarloog moom waaye yonent bi li ngay xam ak tedd nga am mooy dem nañ ba juróom-ñaareel bi asamaan Seydina Jibril ne ko man fii la sama gétt nekk fii laa mën a yem Moustapha dem ci leeru borom bi subhaanahu wa taala ba jegee boromam lu toll ne xaaba xaw zeni mu jox ko julli juróom mu wàcc ko ci guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar andi ko sun borom subhaanahu wa taala wax ne yéen kat lii mooy li nga xamante ne bii defal naa leen ko mu wecc ngeen gën xeet yépp ñu am juróomi waxtu yu juróom di ko julli fajar di ko julli tasbaar di ko julli takkusaan di ko julli timis di ko julli gee ci àdduna bépp àndandoo ci sun borom ne bu ngeen ko defee danaa leen jox yoolu juróom fukki julli te loolu su baaxee seen àdduna sépp baax bokk yi loolu ci weer wii la ci fan yi ñu dëgmal la ñu amaat ci xaas ju toll ne sun borom su subhaanahu wa laa jox ci sëriñ tubaa cheikh mohamadunil fadil cheikh mohamadul fadal mooy ki nga xam ne bi yàlla dogalee mu feeñ jamono ba jaar fi mu war a jaar maase ak julli benn bis guddi gi mu feeñee jamono bi mu agsee mu di ko màggal moom cinq la sëñ Fallou toog fii ci réew mi bi muy toog fekk na àdduna bi balaa bu ko gën a rëy daj fi musiba mu ko gën a rëy fi ndax booba rafle bari na fi xiif bari na fi ñàkk bari na fi tumuranke bari na fi ndax booba crise mondiale moo amoon crise mondiale moo amoon sëñ Fallou ba mu toogee ne kaay leen ma pikir leen jëmbut saafara ne naan leen dafa toog ci tuubaa ginnaaw bu mu liggéey la yàlla ba am ngërëmul yàlla na rafle mott kenn gisatu fi ko léegi koo dem ci ab armal boo ko ubbee lam ca denc ci ay yére su ko jaayoon ay milliards lay doon lam ca def ci ay yére wóor na ko ne mënu koo sol ci ak dundam kon baatub rafle motti sëñ Fallu ja moo fi jëlee rafle ba faw te da ko wax rek ci aw làmmiñam mu daal ràgg mott keroog la balaa génn ci réew mi 1945 ba 1968 kenn déggu fi nawet bu gàntu àdduna bépp a neex sëriñ Fallou kooku ci làmmiñam rek la ko waxoon sun borom moo barkeel aw làmmiñam àdduna nettali na lu dul jeex àdduna nettali na lu dul jeex loo xam ne bu musiba amee ci sëñ Fallou la ñuy ñëw Houphouët-Boigny du ab julit du président réewum senegal feebar dal na ko ca Côte mu yónnee ci sëñ fallu na ko damaa wéradi te bëgg ñu ñaanal ma sëñ Fallou daf ne kam koy ñaanal ndax xam na ne am na ci aay yoo xam ne waru koo bind jox ko ndax du jullit waaye sëñ Fallou mu def saafara sa la def ci bëti nit ki na ko boo demee xoolal ufet bu xoolee dana wér kooka ba mu jàkkaarloog ufet bu waañi ufet bu waañi dafa wér ba toogaan na fi at yu dul jeex bokk yi sëñ Fallou moomu nga xam ne day fab saafara di ko def ci ay bët fab saafara di ko wax ci aw làmmiñam su nawet masaa gàntu ba munta taw bu sëñ Fallou nee na taw mu am àdduna bépp nangul nan baatub ne na am mu am sëñ Fallou koy def bu mu am du am sëñ Fallou koy wax bokk yi njëréel yi fii ci Madina Mbooba bi ñu ko nee njëréel yi daa daj kapp Sénégal te loolu di bekkoor sëñ Fall dana nañ ci jàpp wenn yët ma ko bañ ko ko yëtee sëñ Fall da ko ne xoolal waaye tool yi nga gis ñu koy bay ci jumaa yi sëñ Bamba ji lañ ko jëmee kenn du bayal sëñ Bamba na nga di ko yàq àndal ak say morom génn réew mi ci bu leen fi del seeti keroo la aw njëréer géej Sénégal bokk yi sëñ Fall moomu moo dëgmal bisam kon dama yaakaar ne ñun senegal am nañ tawféex ju toll ne jàngoro ji mën nañ koo génn réew mi ot ci ni mu gën a gaawee muy ndamul Afrique di ndamul Sénégal di ndam ci àdduna bépp ba ñëpp naan fu ngeen jëlee médicament yu gaaw yi nga xam ne mooy génne coronavirus ci biir réew mi lan mooy médicament bi mooy dimaas di ñaar fukki fan ak benn ci weeru tubaab di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru rajab mbokk yi dégg nañ déclaration bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa def na ko ngir dalal xeli nit ñi mbokk yi fu waay mën a nekk ci àdduna bi moo xam nga nekk sa kër moo xam nga nekk foo mën a ne ci àdduna bi yëgal na tey la bisub sëñ Fallou rek fa nga toog nga toog fa teew teewlu toroxlu ci yàlla nañ jàppee ne bis bi dañ ko war a def muy bisub toroxlu bisub dellu ci yàlla bisub gën a feddaliwaat sunu laxasaay ci liggéeyal sañ tubaa fu waay mën a nekk ci àdduna bi na yàlla yëgandoo ne daal bis bi daal nit ñi màggal nañ ko màggal goo xam ne mosuñu ko ne màggale ci fan ca kenn ku ne fa nga ne yoroo sa alxuraan di ko jàng yoral sa xasida di ko jàng yow mii mun a jàng alxuraan daara janga dendal ne leen jàng leen alxuraan koñ ba nga dëkk defal leen ay bernde te lépp loo xam ne docteur yi nee nañ buñ ko def ndax day jul jàngoro ba ngir ragal loola nañ ko maytundiku waaye lépp loo xam ne suñ diina may nañu ko te duñu tiitloo nañ defandoo loolu xool nag sañ Fallu bàyyi kook jàngoro ji mbokk yi dimanche man de man na maa waat ci yàlla ne bu ñu ko màggalee ba sëñ Fallou yëg ne xol yëpp dellusiwaat nañ ci moom sëñ Touba yëg ne xol yëpp dellusiwaat nañ ci moom sun borom yëg ne jullit yëpp tiit dañ dellusiwaat ci moom wallahi altine du jot ca feebar bi génnut réew mi kon mbokk yi nañ ko waajal defe ko ni ko sëñ bi bëggee ñu xam ne bisub sëriñ fàllu mooy al isra wal mihraj sëñ Fallou mooy dindi njàqare sëñ Touba mooy solution solution piir ci àdduna bi mooy sëñ Touba tubaab yëpp nangu nañ ne kan mooy solution ñu ne sëñ tubaa kan mooy paix mooy sëñ tubaa jàmm ji nit ñiy wër mooy sañ tubaa dëkk bi mu njëkk am daaru salaam la ko tudde muy kërug jàmm fala sëñ fàllu ganee àdduna mu tudde ko fadlullaahi muy ngëneelul yàlla ci yàlla nee na woon innal fadla bi yadillaahi ngëneel maa ko yor man yàlla ku ma neex laa ko jox kon yuti man yassa ku ma neex rek laa koy jox waaye jox na ko Cheikh Ahmed Bamba moo tax mu wax ne waskur xurufiya bi xadri saati fii mathi man xaraba bi lazati yaa fadilan faddalahu lxalaaqu yaa man bihi faaraxanil imlaaqu mbokk yi maam Cheikh moom sëñ Abo maa ngi koy ziar nee leen faddlu mooy nafxu faadilu mooy naafixu noo mën a noo mën a adate rek turu sëñ Fallou rek moo lay jur moo lay jox njariñ te sëñ Fallooy njariñ mbokk yi dimanche na ko ñëpp bàyyi xel tribunal yi hôpital yi daayira yi fu waay mën a nekk daal tam wóor na fii daal doo def ordre public na ñëpp maa si jublu Tuubaa rek ne daal sëñ Fallou tey jii ci sa bis bi ñoo ngi àndandoo di ci toroxlu di ci tuubal yàlla di jàkkaarloog yow nag bëgg nag coronavirus na dugg ci géej gi na mott te bu fi dellusiwaat mbokk yi am na feebar bu tuddoon katiw katiw la feebar boobu tuddoon kenn fàttiwu ko bi màggal Touba di jug ñu ne sëñ Fallou daa am feebar bu ne ci réew mi tudd katiwu sëñ Fallou ne déedéet ñokket la tudd ñokket la ko sëñ Fallou tuddee waaye amul ci kenn ku réew ku loola dal bokk yi kon nag lii ñu naan coronavirus ñokket la tudd Sénégal gépp ñooy joxe solution ci monde bi ci barkeb Cheikh Mahamadoul Fadal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu